débat am na débat yoo xam ni dafa doy ndax mbiru góor jigéen bañ koo régler Sénégal dafa yàgg ndax même même suñ ko bindul woon fenn même fekkante ni bi du point de bi du point de vue pénal amul loi Sénégal fii kuñ fi jàpp ngay def affaire góor jigéen wala bu police gaawul wala nit ñi gaaw ñu wàllu la da ngay dee kooku moom ñëpp xam nañ ko sàcc sax buñ ko jàppee fii yàlla nañ dagg loo xam ci lislaam mais nit dañ koy rey donc loolu vraiment problème bu ñu réglé la affaire góor jigéen amul benn nguur muy démb bu tey bu di ëllëg boo xam ne ñeme nga di ko di ko daganal fi ci senegal loolu moom du lu ñuy du lu ñuy wax ah li ci nekk nag kon groupe boobu jóg daan affaire góor jigéen di wax LGBT àdduna bi li fi bon dafa bari te it affaire góor jigéen euh, du du LGBT dugaluñ ko fi fi lañ ko fekk nag fii lañu fekk affaire ngóor jigéen te affaire ngóor jigéen àdduna bi dafa yàgg ci jamono yonent yàlla lóot ku ne xam na ni yàlla tukkal na àdduna ngir mbir góor jigéen te boobu léegi jugu fi ngóor jigéen gu bëri am na ñu ko jëy ci daara yi boo demee ci kaso yi fekk leen fa internat yi ngay jis muy muy muy français nag muy njàngum français di njàngum arab di njàngum alxuraan ci biir internat yi ñuy def mais ku xel ab daf dañuy jàpp ay ay ay ay ay ay ay ay ay xale yu góor wala ay ay ay surveillant lañ jàpp ci loolu yooyu la war a xeex parce que mbir boo koy xeex da koy xeex ci racine ba doo bàyyi rek manifestation yi donc mbiru góor jigéen bu ñu duggee di ko xeex nañ ko xeex fépp li nekk ci ginnaaw aussi xam nañ ko ay salafisme lu nekk lu nekk ci ginnaaw bëgg mbër mbuboobu sëriñ si pour pour jéem leen na ak yooyu du sotti tôt ou tard Sénégal dinañ comprendre ni lii lii politique la parce que bu fekkante ni doo xaar ba élection ñëw campagne ñëw nga yëkkati benn thématique nga xam ne élection nga taxaw ci xam nga loolu loolu pour pour pour daaneel nguur la donc Sénégal comprendre nañu loolu donc nañu nañu arrêté affaire yenn débat yi fii góor jigéen du tey du ëllëg du ginnaaw ëllëg. du fi jàll kenn du ko nangu ndax peuple bi ci bop ñoo koy xeex si gisuma won sax assemblée di dajaloo di ci en pleine campagne électorale di xol ay proposition loi yu mel non lool man gisuma pertinence am li ci tegg aussi il faut wa nguur gi ñi nga xamanteni bi bii euh toutes ces branches ñu jóg communiquer wax ci ndax li nekkul lu tuti parce que xamnañu nañu ban ban nature population lañ yor ils sont dans la manipulation parce que li mën na xëy euh, bu ñu demee population yi gëm yi lu am la mën nañoo xey def ay émeute donc lu mel non su su amé ñepp dañuy jóg ñu expliquer comme ni ko président de la république défé. bu ñu toog rek défé mbir mu parce que ñi ay émeute lañ bëgg ci réew mi Té lépp leen ko mën mën may bépp thème buñ mëna buñ mëna évoquer pour té émeute émeute am ci réew mi euh, comme li amoon mars dinañ ko def donc bu ko kenn xép na ñepp jug ñu ñu wax ci parce que nekku lu ndaw.